armée bu ngewel Cheikh Super Diamono aja mbokk yi arbitre baa ngi waaye sifflé mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan Cheikh Super Diamono moo ñëwoon ginnaaw armée bu ngewel ngeen jàkkaarloo mbokk yi armée bu bu ngewel Cheikh Super Mamadi Ndiaye a njaayalee lamb jaa ngi noonu le spécial de la soirée le grand diggante Armé bu Ngéweul la ak ki nga xam ne mooy Cheikh Super bu Ngéweul moo nekk à droite Cheikh Super Diamono à ñu ngi leew too ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi leew too Armé bu na Armé bu Ngéweul Cheikh Super Diamono dagg nañ leew too bi Armé waaw tooñaat na benn tooñ ndeysaan Leewtoo baa ngi noonu Armé damante baaraam damante baaraam bàyyi nañ Leewtoo Armé bu ngeewal Cheikh Super Diamono ba tey na ko ndeysaan jàppante amagul armée bu ngeewal Cheikh Super Diamono ba tey Cheikh jàppaat na baaraam bi dagg nañ leetoo bi damante baaraam ñoom ñaari mbër ngi leewtoo dagg nañ bi ndeysaan pied gauche la ak pied droite ñaari pied gauche la ba tey tooñaan dagg nañ lewtoo bi ñu ngi lewtoo ah tooñ na ko ñaari ku dalu jàppante nañ Cheikh Super Diaw daw na jàpp ko jàppante nañ ñu ngi bëree laay laay la luy xew laay laay la armée dafa bëgg jàpp armée dafa bëgg jàpp c'est super jamono tee na mu ngi dóor mu ngi mu mu ngi roqas dóor dóor armée ngi dóor armée ngi dóor armée ngi dóor dara amul eh, xale yi li ñuy bëre rey na laay laay la la li ñuy bëre rey na ngeewal Cheikh super jamono arbitre soufflé wan na ñu ngi leewtoo ñoom ñaari mbëri ba tey Armé moo nekk à droite Cheikh Super Diamono moo nekk à ñoom ñaar ñëpp pied gauche ku ne tibb nga suuf day Nogay maa ngi lay nuyu sama xarit bi borom wasaare. saare lay fay sëy naa kenn du ci yow. ndeysaan dagg nañ leewtoo bi ñu ngay leewtoo ndeysaan ba tey tooñaan la. Armé sànni woon na benn coup ndeysaan grand combat bi mu ngi waroon dox ci diggante Moussa Ndoye ak Mbaye Gouy Gui mais malheureusement ndeysaan làmb nii la waaw loolooy làmb di ko ñaanal rek moom Moussa Ndoye mu am tan bu baax dem naa lu nekk pour bëre ndeysaan ah, waaye yaraax ñoo bañ. ndeysaan. daa naroon nëbbu ba combat bi. dëgg la armée sànni na ko. may dàq. sànni war na mais Cheikh jàppante nañ dox na jëm ci kaw. Cheikh jàppante bi la bëgg. Cheikh Super Diamono téye na téye na bi. jàppul. mais armée mayu ko pour beneen loxo bi ñëw armée jàppul looloo tax mu koy xañ beneen loxo bi yaa ngi gis bu bëggee ñëw da koy dóor dóor ba tey dóor dóor mu ngi dóor mu ngi dóor mu ngi dóor waaye ba tey seex a ngi téye daa bëgg mu bàyyi loxo bi ndax fa mu ko def arrangé wu ko. super jamono jàpp moo baax looloo tax mu koy dóor pour mu bàyyi cëy lam waaye mbokk yi di tey la 27 juillet Baol production moo ñu fi woo. féete 20 ans woon. ndeysaan. du ay caaxaan. waaye tey suba kalaaf. laay laay la laa Cheikh Super Diamono lan la bëgg. waaye tey sama waaja. Eh. armée na waaye doxul ña nga jëm ci saako yi armée li xale yi ñu ngi bëree xale yi ñu ngi bëree lu rëy. bëree lu rëy waaye tey sama waajaay takk jabar ca Bambey. muy kan. Sa Touba mu baax mi. ndeysaan Sa Touba mu sëñ mu sëñ Saliou Sa Touba mu Modou xarañ loo. ndeysaan. mi takk tey seen tey Bambey séeréer. sama papa la sama xarit la. waaw loolu na. nee na ma Zeyna waa lamb ñëpp samay nit lañ waaye yow sama doom nga. waaw loolu dafa leer. ndeysaan. waaye dafa leer waaye lamb jaa ngi noonu ba tey xale ñu ngi bëre lu rëy diggante armée bu ngeewal ak ak super jamono laay laay la la forcé na laay li ñuy bëre rëy na ndeysaan doole feeñ na doole Cheikh Super Diamono dem na Ardo. Ardo. munul ñàkk. Ardo doori la. munul ñàkk. doori la. wa waaw ñëwaat nañu. ñëwaat nañu ñaari mbëri ñëwaat nañu. ñaari mbëri ñëwaat nañu ci biir géew bi. ñaari mbëri waaw monsieur wa waaw waaw woote waat na ci digg géew bi. Wade Wane ci digg géew bi protestant bi seex ko seex na ko sifflé waat na génnaat na seen diggante armé bu ngéwal seex Super Jamono seex Super Jamono demoon ca médecin ba ñëwaat na Salim moo dafa demoon naani soow dafa demoon naani soow waaw waaw waaw waaw round d'observation en tout cas léegi ñu mi waaw waaw léegi ñaa ngi ci mi-temps Cheikh Super Diamono face à Armée bu Ngéwal Armée bu Ngéwal Cheikh Super Diamono Armée bu Ngéwal Cheikh Super Diamono Armée bu Ngéwal Cheikh Super Diamono ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo Armée bu Ngéwal Cheikh Super Diamono ñu ngi lewtoo mel na ni kuy dem waaye demul mel na ni kuy dem waaye demul waaw waaw waaw arrêté na combat bi day woote waat ci digg géew bi day woote waat dafay woote waat avertissement Cheikh Super Diamana avertissement armée bu Ngéwël ku ci ne am na ñaari avertissement sifflé waat na génnaan na seen diggante protestant bi wadd na nee na ko seexal protestant bi nee na ko seexal protestant bi na génnaan na seen diggante armée bu Ngéwël Cheikh Super Diamana ñu ngi leewtoo ñu ngi leewtoo armée bu Ngéwël Cheikh Super Diamana armée mel na ni kuy dem waaye demul Armé bu Ngéwél Cheikh Super Diamono Armé bu Ngéwél Cheikh Super Diamono grand combat grand combat 20 ans de Production autour du samedi 27 juillet à l'arène nationale le promoteur Assane Ndiaye à la tête de Production organisée Armé bu Ngéwél armée bu ngéwal face à Cheikh Super Jamono nee na leen bëri leen bëri leen bëri leen contact contact jël jël rajax bëri leen bëri leen loolu la leen wax bëri leen contact armée bu ngéwal Cheikh Super Jamono waaw waaw armée eh eh rofoon nañu rofoon nañu armée bu ngéwal rofoon nañu armée mi ngi door armée mi ngi door dafa bëgg mu sigi armée armée armée mi ngi door seex fi mu jàpp baax na waaw waaw attention attention au chaos attention au chaos attention au chaos attention au chaos seex su bet jamono armée bu ngewal armée bu ngewal seex su bet jamono

bëre nañu xeex nañu ndam demagul ndam dikkagul léegi ñu mi-temps léegi ñu àgg ci mi-temps léegi ñu àgg ci mi-temps di minutes léegi ñu àgg ci attention Cheikh Super Diamono eh! arbitre jee Cheikh Super Diamono na ko Cheikh Super Diamono daan na ko Cheikh Super Diamono daan na ko Cheikh Super Diamono daan na Armé bu Ngéweul eh, jël bi rey na waaw waaw waaw waaw waaw Cheikh Super Diamono Cheikh Super Diamono doomu nday góor ci ko góor la sortie mbërëm daan na Cheikh Super Jamono daan na ko jëlal loolu jëlal coach Mawo jëlal Cheikh Super Jamono waaw waaw waaw waaw waaw eh, mi ngi péré mi ngi feemu waaw waaw jëlal loolu jëlal loolu bëri na bëri bi daan na jël bu rëy